sarax pour bépp Sénégal borom kër gu nekk na nga jënd bale nga bale sa biir kër sa biir néeg ruq-ruqaan yépp na fa bale ba aw ba ca buntu kër ga nga daal di gas bale ba ba mu xoot nga suul ko foofu ndax balekat fu mu fekk tilim tilim dina ko dine te sunu réew mi kat ay seytaane dañ fee dugg te ñoo ngi dem nag ci ay élection génne leen sarax sub soosu pour jàmm réew mi en tant que nag ma nekk saltige Joal muy Joal ak fépp foo xam ne rek petite côte bi la dëkk bu am ndox la borom dëkk ba mbaa xam mool ya mbaa xam mareyeur yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di jëriñu si géej gi nañu génn benn nag bu jigéen bu weex ñu rey ko ci taatu tefes bi loolu dina tax géej gi yàlla sotti ci ay xéewal yu bëree bëree bëree bëri ba jafe-jafe yi mool yeeg askan bi yëpp di dund yàlla jeexal loolu te sarax soosu tamit dina dem ba laal pétrole bi nga xam ne moom moo feeñ ci sunu dëkk yi yàlla mun ci def jàmm